seen beneen actu du jour ami internet de 24 actu bàkk ba jëm na nuyu nañ leen comme nañ leen daan nuyoo comme nañ koy defee rek euh, saa su nekk dañuy wax euh, xayma bis bi la mu génnee ci ay kaa fi ci réewum Sénégal mu di mbas mi la réew mi àddina wërngal këpp ci junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom ci ay test yi nga xamante ni amal nañ ko juróom-ñett fukk yi ak benn ñoo ci daal di ñëw positif maanaam amee jàngoro ji ci biir loolu juróom fukk yi ak juróom-benn ay cas lañu deux yi nekk cas importé te fukk yi ak ñett nekk cas issus de la transmission communautaire mu di cas yooyu nga xamante ni nii moo jaaxal àddina wërngal këpp ci gox ya mu feeñ mën nañoo jàpp benn ca Liberté 6 benn ca Golf Sud Kër masaar am benn Mariste am benn Hann am benn Parcelles Assainies am benn Malika am lu toll si ñaari cas Wakaam am benn Yëmbal am benn Touba am lu toll si ñetti cas mën nañoo jàpp ne fii ci réewum Sénégal am nañ lu toll ci 20 cas grave yoo xamante ni ñi ngi service de réanimation patients yi nga xamante ni hospitalisé nañ leen ñu ngi am tan mën nañoo jàpp ne ci réew mi bu mu fi duggee ak léegi di mbas mi di coronavirus Sénégal lim xayma ci ay cas mi ngi toll ci ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent moom lañ am positif ci réew mi ci biir loolu junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñett wër nañ ci ñeent fukk ak benn génn ci àddina ñi saytu ci lali hôpital yi ñu ngi toll si junni ak juróom téeméer ak ñeent fukk ak ba tax ministre bi di gën di ñaax askan bi ñuy gën di wéyal di xeex jàngoro ji di respecté loolee nga xamante ni moo di mesure barrière yi ngir ñi mën a mucc ci jàngoro ji di coronavirus. yokkuteeg jàngoro ji jaaxal loolu askan bi ba tax ki nga xamante ni moo di ministre des transports aériens daal dinay génn si compte Facebook am daal di xam ne ne tëjum frontières yi ba tey dañ koy prolongé bala 30 juin 2020 bii l' état d' urgence day wéyandi démb ci alxames ji yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bi ministre bu l' intérieur di Aly Ngouille Ndiaye daal nay génne beneen décret di ci xam ne ne circulation personnes yi ak biens yi jëm ci dëkk ak dëkk dañ ko daal tere ndax bu ñu seetloo gis nañ ne jamono jee ñu weesu génnoon na daal di xam le ne comme que Dakar ak Touba la ëpp nit ñi li ñuy dem ba taxoon joxewul ay autorisation ngir nit ñi mën a jugee Dakar dem ci yeneen dëkk yi ngir di fa koriteeg yu ni mel ba tax démb daal di ne génnewaat def beneen décret ne képp koo xamante ne nii am nga raison boo xamante ni professionnel la man ngaa am autorisation pour mën a circuler jugee si département dem si beneen si région Diourbel ak Thiès mënatul am waaye am si diggante vingt et bu jotee jëm euh, cinq heures maanaam neuf heures ci guddi ba cinq heures loolee dañ koy daal di respecté ba tey ak li nga xamante ni moo di état d'urgence bi ndax mbas mi lëmbee na lool àddina wërngal këpp ba tax lépp loo xamante ni nii rek dina ko mën a gàllankoor jëwri li nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu woowu ña ngay def ay mesure ngir ñu mën koo respecté ngir mën a xeex mbas mi mu gaaw génn ci réew mi ci ni mu gën a gaawee affaire vidéo pornographique bi xewoon ci bésu korite gi ñu génn ci cité mixta mu jur coow lu rëy ci réseau sociaux yi ñu gis délégué quartier bu cité mixta daal dinay xamle ne vidéo yooyu nekkul benn yoon cité mixta confirmation bi mu ngi jugee ci commissariat bu police bu Parcelles Assainies ne xale yi ñoo leen jàpp te mbir mi mi ngi xewee cité Mariste du samay kàddu ki ko xam ne rek moo di délégué bu quartier mixta boobule buñ sukkandikoo ci ëttu yëglekaay bi di Seneweb Théès ki nga xamante ni moo di ousin Keita ca brigade de lutte contre la cybercriminalité ci benn conversation téléphonique boo xamante ni jamono ji tas na lool ci réseaux sociaux yi moom Ouzin Keita dafa daal di insulté ki nga xamante ni moo di Tinge Tandia ak benn jigéen mu tudd Zilda moom moom sax xale bu jigéen boobu ki nga xamante ni moo di Théoune Tandia daal dina koy plainte moom ak Ouzin Keita ndax dafa traité homosexuel maanaam góor jigéen ki nga xamante ne nii moo di animateur VIP people boobee ak yeneen wax yoo xamante ne nii dafa dégradant ci coow lu ñu nemmeeku woon démb sa jàmm gën si kàmbaaw ndax askanoo wa fa yeewoo dañoo daal di attaqué woon sapeur pompier yi ak ñi nga xamante ni moo di waa croix rouge ndax dañoo bañoon ñu jenci kenn ko xamante ni ma nga faatoo woon ca gox boobu la ñu daal di koy testé mu amee jàngoro ji di covid 19 mu sukkandikoo ci laas ñeent si ñoom daal di lañ leen teg loxo ngir violence bi ñu nemmeeku woon démb fële ca Sicap jàmm gën ndax dañoo bañoon ne duñ fa jenci néew boobule ndax néew bi dafa amee coronavirus ba taxoon ab violence su metti amoon ca gox boobu le ñeent ñooñu rek lañ ci daal di teg loxo ñu xaar ba xam rek fan la ñuy mujjee ak mbir moomu le ubbiwaatu école bi ñu jàpp ko la 2 juin bi ñu dëjmal lu ci mel ne Dakar ak yeneen région fii ci Sénégal la gouverneur de la région Al Hassan Sall wax na ne dinañ ko def ak sécurité bu mag ndax lépp luy di d'hygiène dinañ ko jël ngir protection mën a am buñ sukkandikoo ci ëtt yëglekaay bi lee di Seneweb ndax askan bi ak professeurs yeeg élèves yi dañoo am njàqare lool waaye ki nga xamante ne nii moo di gouverneur bi dalal na seen xel ndax ne ne lépp loo xamante ni hygiène la dinañ ko jël ngir mën a fagaru ci jàngoro ji di coronavirus ëttu yëglekaay boobu lee di Seneweb moo daal di génne yooyu la xibaar ñu wax ci ñaawteef yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku jamono ji ci réewum Sénégal ca résidence Zeyna des Maristes ak appartement meublé ca cité kër góor gi Sacré kër ci veille Ramadan ak bisu korite gi ñu génn ay xale yoo xamante dañoo organiser woon ay vidéo prono ñi ko def ñu ngi toll ci fukki nit ak ñaar ci biir fukki nit ak ñaar yooyu juróom-benn yi ay filles mineures lañ yu doon def li nga xamante ni moom la ñu woowee rapport sexuel. enquête biñ ci def moo xam le ne ñi si gën a nekk xale seeni at mi ngi tollu si fukki at ak ñeent ñi ci des am lu toll ci fukki at ak juróom-ñeent ak ñaar fukki at ak benn liñ leen di toppee rek moo di de pornographie détournement de mineur viol buñ sukkandikoo ci ëtt yëglekaay bi lee di Sénégal ba tey dañuy deseni waat ci ñaawteef yooyu ne dañ koo nemmeekuwaat fële ca Point E benn vaste réseau de prostitution ca auberge yooyu bu Point E gis nañ fa benn stock bu toll ci 600 préservatif jëm si client yi ci Covid 19 bi ñu nekk police yi la ñu gën a seetlu rek moo di prostituées yooyu maanaam ña nga xamante ni ñoom ñoo fay cagatu ak client yi fa nekkoon amuñu kenn koo xamante ni takk na ci lii di masque si noonu lom l'homme d'affaires chinois ZXG. ak juróomi nit yoo xamante ni ay prostituées lañ maanaam ñuy jaay seen bopp ak ak yi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee client VIP daal nañ leen teg loxo fële ca commissariat bu Point E ñu daal di bàyyi rek ba xam fan la wànnante mujjee ki gëtam ci mbir moomu la ki nga xamante ni moo fi nekkoon njiitum réewum Sénégal di président Abdoulaye Wade ñi gis na tey jii nag day féete quatre-vingt-quatorze ans ñu di ko ñaanal rek mu yàgg koo féete di ko wax tamit joyeux anniversaire moom ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Wade di ko ñaanal fan wu gudd mu yàgg koo féete ak yeneen ñaari nouvelles yi nga xamante ni jot nañ ko fi moom lañ koy daal di jeexalee moo di mariage ki nga xamante ni moo moo di Mandiaye Seck ak Bijou Ngoné nekk journaliste fële ca 2STV gis nañ ne nag démb dañ ko doon takk ba mi ngi nekk. Euh, ma dam Ndaw ñi di ko ñaanal sëy bu barkeel ak Mandiaye Seck nekk prince su Faramareen ñoom ñaax ñëpp démb dañu doon takk kii dañ ko doon takk kii tamit doon jël soxna ñu leen di ñaanal euh, sëy yu barkeel ak njaboot gu barkeel fii rek lañ koy nder képpee di leen jox dig daje ba ëllëg a càmm